mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen kii nag moo doon bëre léegi arène nationale ah léegi diggante mag booy Niang ñun nag ci combat bi liñ ci doon xaar yaakaar naa jëli lañ doon xaar arbitre nag am na benn moment àtte na pour xëy na joxe jël wala mu wax ak ay sisam ñu ne ko jël la amul lool nag arbitre sa la met di terrain ñun moom loola domaine arbit la waaye ki doon bëre bëre baa ngi nii olof ne na tung du teew ñu ne si ëg maa ngi lay nuyu di la ziar waaw Babacar maa ngi lay doolu ziar di di leen gërëm di sant waa Géejawaay bu baax a baax ak sama supporters yi nga xam ne teew nañ biir stade dégg lu nekk biir stade ñu ngi leen di jégalu di leen masalu coon bu baax a baax ndax làmb ji moom xool nañ ba xool moom ah sama supporters sonn nañ ci trop maa ngi masalu waa Géejawaay di leen wax ne kat ah alhamdulilah wax alhamdulilah rabbil alamin combat bi tey bi nga xëyee yeewu lu njëkk sa xel. daan. loolu rek moo nekkoon sama xel parce que samay xarit dañ doon sonn ci bés bi sama xarit dañ ciy sonn fu nekk ñu dugg fa weerante fii dugg gauche dugg droite xama la Abdou Salam moom aw ma fayam Abdou Salam dafa sonn ci kombaa bi billaahi kooku moom yàlla rek laa koy bàyyeel ki gën a tax nag ma bëre mooy Abdou Salam léegi bu ñëwee ci biir combat bi ñu gis yàgg Boy Niang ngeen ñëw ci biir combat bi li li am ci combat mën nga ci dikkaat. waaw li ci combat bi mooy bëre nañ ma daan ko jëli feeñ na loolu la rek. Ah, yaa daan. ah di leen tax a ñëw fii kay yéen xam ngeen ko. waaw ñun dañuy non non ñun dañ fay ñëw en tant que wut xibaar noo daane. non man maa daan. noo ko daane. dugg leen ngeen seetaanaat ngeen xool fexe la bu ko kenn dagg. nañu xool feesam bi ba ko tegee vidéo yaa ngi fi kay. te moom xam na ne moom mu ngi ak moom xam na ne sax waa Pikine xam nañ ne maa am ndam li waa Pikine sax ba may génn ñu ngi ma doon wax félicitation kon donc loolu sant yàlla la. action boobu mën nga mën nga ci dikkaat action bi indi loolu. waa da doon jéem a tegal siis ma yokk sama tànk ci këram xëcc ko mu dellu ginnaaw mu teg fees bi ba muy teg fees bi nag ba muy jógaat mu ngi tegaale loxo yi mu def quatre appuis encore waaw. léegi arbitre daw na ate bëgg joxe ndam li yaa ngi dégg ba mu bëggee joxe si la jógee si la ñu waxee gaa la ñu bëriwaat mais man xam naa ne am noonu naa ndam waaw. léegi ci biir ci nga ne arbitre bi foofu moom moo ne du mais xamul tax yan raison la arbitre am ba ne du joxe ndam. laaj naa leen ko. est-ce que laajul ay système gis ne ka li nga wax ah, loolu demeewul noonu. quatre appuis am na Sénégal ñëpp xam nañu ne quatre appuis am na boo ñaa moo la gën a xam ne quatre appuis am na moom xam na ko de xam nga tey nee naa la man sportif laa yaa ngi dégg sama combat ak Eumeu te mënoon naa concessé bañ ne daanuwuma mais dama def fair play ñëw taxaw ne am na ndam na boo ñaar delloo njukkal bi rek delloo xorom bi. la moo tax euh, mu mel ni da nga naaj si ñu leen di si ardo nga doo dem. moom dafa naaj ñun ñaar a naaj. kuwam day ñëw suñu ñaari yi dajee ñun ñaar man bañu ma dem ardo mais moment bi muy dem ardo arbitre na ko demal ardo mu tourne piis ardo piis arbitre bi wallahi bu fekkee li may amul kon yàlla ba mat dara ci làmb dafa piis arbitre bi arbitre bi tourné na ma dabal yow yaay dem ardu te gémmiñ gi dërët bi ba nga commencé roog la ci côté tuñ mais garaawul am problème waaw léegi arbitre bi moom c'est le méditerrain match nul la joxe sans verdict maanaam dañu disqualifier combat bi léegi kon lak su ma ko déggee ci ay waxam recours day am wala CNG xam na ne am naa ndam sax CNG même bu ma tegul sama tànk CNG sax ñoom xam nañ ne am naa ndam te damay def recours sama papa Moustapha Gueye xam na ne am naa ndam père Bekaay xam na am naa ndam Euh, nu mu tudd euh, euh, ah, kii ñi fa nekk ñëpp alaaji baba jeeg sax xam na ne am naa ndam doom bekaay bi sax laa la de xam na ne am naa ndam doom bekaay mbay bi Modou Mbaye ñoom ñëpp xam nañ am naa ndam Pikine xam nañ ne man maa moom ndam li xam nañ ko dañu accepté rek garaaw la tey tamit may seetlu benn affaire géej waay yëpp génn ñu gis sax ñoo xam ne dañ leen gisoon ci combat Balla Gaye la fa passé ñu indi la mu mel tamit côté mystique tey da nga ci blindé bopp bu baax waa noonu la ndax maa créé loolu maa créé tamit concept doomu géejiwaay ñun ñëpp ñu booloo doon benn bés yi géejiwaay déggu lu ma la sama bakkan bii laa ci teg sama bakkan bii laa tegoon ci làmb ji déggu lu ma la daan mbaa dee rek parce que tey géejiwaay ñëpp mbir yëpp ma doon woo téléphone di ma saraxu ngir yàlla war a suuli mbër indil ñu ndam bi sonn nañ moo tax làmb ji tey da kon fonde ba da nga ko da dana ko naan euh, këpp na këpp naan moom sax moom moo naan far waxoon naa ko ni nga naan fonde bi mais tamit euh, kii euh, Babacar dama koy encouragé ah, di ko masulu di ko wax ne lamb nii la na muñ rek mu benn préparé wu waat xam nga loo wax te nangu rek ne ñàkk na il faut mun doon sportif yaa ngi dégg di wax ne per bul xam moom am na loo xam ne nekkul waxam am na loo xam ne du waxam parce que am na loo xamante ne maa ngi koy métitlu parce que sama ndey bu ma sukk jur moom bu ciy wax na ci wax lu rafet bu ñaanewul bu ñaanalul sama yaay fa mu tëdd warul taxaw di wax yenn yi maa ngi koy métit lu baax a baax ci kàddu yooyu nga xam ne wax na ko tey moom dafa mel ni respecté wul li nga xamante ne moom mooy ay waajuram man ku ma xam-xam ne dama fonk samay waajur fonk waajuru jàmbur yaa ngi dégg kon donc loolu waru ko def ndax mag la kilifa la dama ko jox cër kon cër boobu daf ñu ko war a dellu def ñun ñëpp ay doomam lañ am na yenn kàddu yoo xam ne warul génn ci gémmiñam ba muy wax leen sama yaay sama yaay ngi tëdd fu mu tëdd defu ko tara yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana. amiin amiin maa ngi sant nag. léegi balaa ngay sant tey yaa tudd maire bi yal na ko yàlla jégal te xare ko aljana ku ne xam sa digganteeg moom nga ngemb takk sir war a dem stade sa xel ci lu mu jëkk a dem te bi nekku fi. ajjuma ji damaa demoon ci bërëb ba fa mu tëdd ma toog ziar ko ñaanal ko yàlla santaat ko bu baax a baax a baax a baax ndaxte manaa ah, wallahi aw ma kenn ku dul sama yaay barki Seydina Muhammad su ma koy wax sama xol day tooy bëgguma sax di wax sama rongoñ di wadd yàlla bëggul loolu ndax jullit laa dama koy ñaanal fa mu tëdd gënal ko fi mu jóge yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjana yi gën a kawe képp koo xam na sa yaay mu ngi dund ah maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam te may wax sama mbokk mbëri ak ñi nga xam ne du ay mbër ngala nañ fonk yaay yaay neex na de ak a neex wallahi neex na trop waa mais may sant géejuwaay bu baax a baax. nga sant waa géejuwaay léegi foo jëm. fi ma jëm dama digg waa géejuwaay roi des arènes te day am. des arènes ba day nga Pikine. déggoo lu ma la sama bët fi ma ko teg li ma dig waa horizon ak li ma dig waa géej waay mooy roi des arènes te ci kattanu yàlla dinaa leen ko indil. maa ko yor te teg na ko le da koy xëccoog Modou Lo. ba bés ba. waaw. laay wax du ma ci wax damay samp ndënd parce que tollatuma fu ma leen di samp leen dënd. lamb rek li lamb wax rek. loolu laay tamit am na jiw boo xam ne Sénégal dañ koy wax dañ ne Lac de Guiers du bëre maanaam day ñëw taxaw tëj bëreem ku taxaw na bëréew ma waxoo lu neex da ngay wax la neex rek ku taxaw na Lac de Guiers tey ak ma fi def lépp heure li ma fi def yëpp moom mooy xale loolu la ñuy wax moom mooy xale moom moo dàq bëre moo dàq xeex ah bëre nañ de xeex nañ te la mu bëgg fekk si naa ko man maa taxaw di bàyyi samay góos mu taxaw sur place tey nañu xool am na loo xamante nu wax sax ba rëdd daw kal bëre wane sama li ma mëne. mais pare nga pour joxe ay revanche. ndax pare naa pour joxe revanche. Tapha Tine da yaa ko bi laa bëgg ba kan. Tapha Tine daanoon nga ko de. Tapha Tine ndeysaan champion mag a ngi noonu nag te gars yi bàyyiwuñu ko xel maa ngi koy wax gars yi nanguwuñu ma dégg ndaanaa na ngi noonu. giri itam bëggoon nga ko ngeen ngeen xeex. giri <laughs> giri Bodo maa ngi koy jaar di la bége maa ngi lay bége bu baax champion di la nuyu bu baax di la nuyu di la nuyu sama yaay di nuyu Maodo maa ngi lay ziar sama copain waaw Talibe Cheikh waaw. ba ma ji di ngeen bëri. kooku sama di yaay la wax naa leen ko ba taay beneen bi si toppaat ma gërëm nag. waaw. dama sonn Babacar. waaw ndax di nga bëri Bombardier ne wax naa ko waxati ko Bombardier sama lépp la. Ama. Balde. Ama ba dafa dëgër bopp te bugguma xale bu dëgër bopp. dafa dëgër bopp ça dëgër bopp bi lenn la pour man nit da nga war a jox sa papa cër yaa ngi dégg jox say mag cër jox sa yaay cër man damaa daw ba sonn daw naa ko sonn façon lu nekk wax na ko pour bëgg a bëreeg man mais man ba léegi maa ngi xool sama digganteeg baayam. ba léegi maa ngi xool sama diggante ak magam ba léegi maa ngi xool sama digganteeg ibu parce que lu mu bon bon bon ñooñu samay nit lañ ku leen fonk laa ku leen respecté la te yaayam ku ko bëgg laa ku ko respecté la fa laa yem leneen li ci des nag damay sant waa géej waay dafa am koo xam ne jëmm joo xamante ne. Baboy dal doon contact si combat. voilà merci en parlant de Baboy wallahi wallahi laa lay waatal barki sëriñ Babacar Sy ma yaakaar baabooy liñ ko waxal yépp ñu ngi koy tooñ baabooy tegul tànkam sama entraînement baabooy xamul sax fu may entraînement baabooy munu ma ne mu nekk mbëru waa Pikine ba pare mu retourné encore man ma koy xëcc pour mu may jàppale déedéet man am naa staff baabooy musuma jàppale baabooy benn yoon laa ko gis ca dëj lañu daje mooy dëju magu Balla Gaye bi fa lañ daje mu jaale ma ma ma jaale ko ñu jaale Balla Gaye mu dem yoonam ma dem sama yoon may dégg ñu koy wax lu nekk ba ma setaanee sama dama am ma metti ma ne xool leen ñii ñu ngi tooñ doomu jàmbur nañ ko baaluwaat àq am na yoo xam ne baaxul am na loo xamante ne baaxul nañ bàyyi di tooñ doomu jàmbur yi baaboo yi jàppalewu ma tey jàppalewu ma ëllëg man du ma fen beneen bi toppaat damay sant waa géej géejawaay damay sant waa ikiri waalo baax a baax a baax a baax maa ngi sant sama mag sama xarit sama doom ndey grand liiru grand liiru bés bi da caa wax wax wax a wax wax wax ba mujj bi dama ko yërëm liiru dafa sonn sama bés bi Maguette Seck dafa sonn sama bës bi billahi dafay wax bay jooy mais mention spéciale ki nga xamante ne mooy sama doomu ndey sama xarit Alioune Seye numéro 2 maa ngi sant Aline numéro 2 maa ngi santaat Aline Seye numéro 2 maa ngi santaat Aline Seye numéro 2 tey combat bi ba xanam la ci teg billaahi sonn ci du yuux man dama dem ba yërëm ko estat concentration bi ma indi woon dem na ba mujj moom dafa tiit te dama ko gis ci bëtam mais xamul na ma moment boobu noonu concentration mu rek moom ma waroon ci bés bi mais maa ngi sant Alioune Seye 2 bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla fay xolam yal na ko yàlla fay xolam yal na ko yàlla fay xolam ci barki Seydina Mohamed di ñaanal sama coach Rone li tëru géejewaay ñoom caat ikiri wàllu ñëpp di ñëw nag fi nga xamante ne moom mooy ndeyu mbili gi Balla Gaye 2 saa kees Balla Gaye 2 saa moom dafa sonn ci combat bi wallahi fu nekk dugg nañ ko maak moom Balla Gaye 2 maa ngi koy sant di ko gërëm di wax waa géej waaye nañ ma ñaanalal Balla Gaye 2 bu baax a baax te yàlla na ko yàlla fay xolam saa kee sama entraînement yi bàyyiwul dara dugg na fépp ñëw jàppale ma ci lépp guy gi seen waa écurie ñëpp guy gi dama koy sant bu baax ñëw jàpp ci contact yi Elton maa ngi koy sant di ko gërëm les deux Pape Mbaye moom bañ bañ bañ na tey la combat bi dafa wax a wax a wax a wax ba mujj bi dama ko yërëm waaw maa ngi sant ñëpp ñoom Gabar Sine ñoom Rambo maa ngi sant mbëru géej yëpp ñoom Marley ñoom euh, fils de Balla fils de Balla ndeysaan dafa may woo téléphone ba mujj bi bugguma ko sax jël téléphone ndax xam naa ne bés bi da ko ñor billaahi maa ngi koy sant fils de Balla maa ngi lay sant maa ngi sant tamit euh, euh, dama bàyyi Balla bi Youssou Ndour sama doom nday sama xarit waa Ikri ba euh, Ikri Balla Gaye maa ngi sant ñëpp. waa géej waay ah origion bi ah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp texte sama président sama président xol maa ngi lay bëggee Azou maa ngi réel bëggee. saa. saa ci loone waaw sant naa yàlla bu baax. daa ni kontaan nga de. waaw féex nañ tey. da ngeen daan. Ah, man de wax dëgg loolu laa gëm. bi de waxul loolu. waaw waxul loolu mais. espoir la juum nag dina am waaw bi nag juum na waaw bu doon sama sago tamit CNG ñu xoolal arbitre yi ñu fiy teg te buñ defee naka suñu noonu ah, bu fekkee lii sa da ci nar am si le faut ñu jël suñu tere teg mu mbuy bi ni sa recours mais ñu xool li bu ñu def ko parce que tamit dafa am loo xam ne neexu ci xol préparer sa combat daj ci nekk ñëw ba ci sa jour combat daan nit ki ñu ne daanoo kan xamul li muy mais sant yàlla dynamique bii ñu jug moom dëgg yàlla kontaan nañ ci amuñu lenn loo xamante ne dañ xel ñaar ni ay machine la waaw. sa waay ci liggéey yéen ñaar. waaw ñoo ci ànd ñëpp ak ñeneen ak ñeneen mbëri géejawaay yëpp nag du man ak moom dong xëy na man moom kiyam laa rek nattoom laa xama dama cee fës rek mais wax dëgg yàlla ñeneen ñu liggéey ñoom Guy Gi ñoom Balla Gaye ñeneen mbëri géejawaay yëpp naa lax ay Alioune Seye gis nga ñoom ñëpp ñoom ñoo fi nekkoon xam nga bàyyi mag ñoom pam ak xam nga ñeneen ak ñeneen ñu ngi fa woon jàpp ci contact gi xam nga musculation bi ñuy dem xam nga di gërëm tamit ñi nga xamante ni jàppale nañ ko ñëpp mi bu waajuram di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana bu waajuram bu jigéen aussi tamit di ko ñaanal euh, papaam yàlla bàyyi ko fi xam nga di ñaanal mbëru géejawaay dynamique bii ñu dugg ci ren bu déwénee yàlla nañ ko sumbuwaat li ko dalee ci Balla Gaye Lac de Guiers guy gi man naa yàlla naa ci gën a néew le waaw ñun ñëpp parce que ñu bëri nañu mais wax dëgg yàlla kontaan nañ trop tey moom waaw. léegi foo ko jëmale. fu ma koy jëmale mais boo daanee jëm ci kanam rek wax dëgg yàlla mën naa ne la de guerre euh, kii nu mu tudd combat bi di am bii di ñëw mais ku daan bopp ak aaw fa jógee bu so mën na fa mën na fa mën na fa am na fa adversaire waaw loolu laa gis moom lay waxee. waaw mais sant ko rek sant euh, Sakef sant Balla Gaye sant Guy gi sant leen ñoom ñëpp sama ñaari doomu ndey ci ginnaaw. ñaari planqué ñaari doom day planqué yi planqué numéro un planqué numéro deux ñu ngi si ginnaaw maa ngi leen sant bu baax a baax di sant ñëpp sama doom nday nag maa ngi koy sant di ko gërëm Badara Badara moom dafa sonn ci combat bi fu nekk dugg na fa moo tax ma ne la bi du woon lu ñuy ñax ndam rek ndax géej waay da soxla woon. sa diggante ak Sa waaw xam nga dafa yàgg nag. ndaxte euh, papam daf ma ko dénk yàgg na. li ma la wax nii yàgg na trop mun ma sa rakk la dénk naa la ko kon donc kii bés bii nii dafa bés yëpp la bës yëpp da ciy sonn mais bii moo ko rawati lu nekk def na ko lu nekk def na ko pour ñu am ndam mais alhamdulilah ba ñu yàlla mayee li nga xam moom moom la ñu am nii maa koy sant di ko gërëm